tooñ ma sa bopp parce que dem nga wékk koo xam ne sa bopp pour mu xoolal la ko mm. dara du la ko foox lu dul loo xam ne dafay renforcer sa ñaaw njort si nit mm-hmm. kon njabar amul ah njabar gaw ma ko gaw ko <laughs> affaire moom ko waaw man gaw ma ko donc moo tax ma ne nit ki loo ñaaw njort ñaaw njort ñaaw njort am na yoo xam ne waroo si ñaaw njort mm. ñaaw njort nag baax na parce que àdduna bi ah. euh, ah. ñaaw njort nag am na ñaaw ah. njort nag am na ñoo xam ne gëmuñu ko am na ñoo xam ne gëm nañ ko xam lu tax ma ne ñaaw njort des fois des fois mu bare ah comme comme comme li ñuy wax ba tànk bi danga koy tàllal wala nu bank ko bank naa ko ah, ah. comme li ñuy wax xarit ab tànk danga koy tàllal wala nu man xaw ma lii alima barka borom tubaab ku ma sëgg falaay bi defal ndànk danga may ree rek defal ndànk man da nga may ree rek comme li ñuy wax xarit ñaaw njort nag baax na comme li ñuy wax xarit <laughs> man su ma demee ba nar a ñaaw njort sama xarit ñaaw njort ah hmm. ba nar a ñaaw njort sama xarit hmm. ma bàyyi ko Mhm. donc moo tax ma ne gëw ma ko lu tax ma wax su ma demee ba nar njaaw ñaaw sama xarit sama xarit bu ma nar a def loolu loo xam ne lu bon la ma ñaaw si njort ne kii am na lu ma def loolu bon ma effacé wu bàyyi ko moo bu fekkee da nga nekk si yoonu dëgg munoo toog di xalaat ne nit mun na la def loo xam ne yaa ngi siy ñaaw njort parce que bu fekkee tu es sain am na yoo xam ne doo si ñaaw njort si këru àdduna mhm. mais bu fekkee am na yoo xam ne da koy def di si ñaaw njort ne nit mun na la ko def loo am na yoo xam ne ngit du ko def te da cay ñaaw njot wala mu rafet sa njot am ca insident bu rëy sa soxna la yaa ko jël yóbbu ko Europe dagal ko billet mu nekk sawet nga bëgg a am bëgg mu am nga bàyyi ko mu dema dema dema dema dema dema dem ba miin gën laa xam fa nga ko yóbbu am la nga xam ne moo fay téye nit di la fa téye nga dem ne ñaadam ñaadam ëlbatiku ñëw fekk ko ci anam boo xam ne neexu la. ñu bari ñu mën ngaa ñëw fekk ko ak geneen góor wala nga ñëw fekk góor nangu ko wala nga dem tukki ñëw fekk ko mu délogé fa ngeen jóge wala ngeen bokk kër mu taxaw indil la ay problème ngeen ne ñaadam ñaadam mu daw wooyu police police ñëw ne la d'abord li ñu njëkk a wax dégage. cinquante mètres. du noonu la ñuy wax bon waa. cinquante kilomètres loolu la ñuy wax de. ah, ah ok cinquante mètres la ñuy wax ne dand dand ko kër gi. ma ne ma ne dama ne soo fa jotee Europe laa la wax waxuma la fii Europe soo fa jotee ak sa soxna su police ñëwee la mu lay njëkk a wax. ku góor ki génnal kër gi daan ko cinquante mètres. nag Benoît moo a gën a miin foofu de. Alima Dior gënuma faa miin dem nan fa man ak yow ñoo ànd ñoo réer. nan fa. dem na fa dem naa fa. benn Amérique la ma dara dem nga dem naa avion France. naka ngay amee sa jabar. ah dem dugg na avion dugg moom laa démarré moom laa démarré sama discussion. dugg na avion dugg na avion. ah c'est tout. loolu laa démarré fii laa embarqué aéroport bi. te fii am na ñoo xam ne ci këru àdduna dootul lu fi embarqué ndax. te ko sëñ Modou Habib ñaanal la barke ba ko ba embarqué. dimbali nga toog yow merci waaw. merci c'est vrai tubaab yi ma yàgg woon. 48 heures nga def ñibbisi. oh oh dama ne. non benn def na 3 jours. 48 heures la fa def. def na 72 heures benn dëkk la am Paris la am. je m'en fous ak nu man demee Alioune te damay demaat de. pour su soobee nga war a dem nag ndax ndax benn lim lay. su góor gi si ngay jëlee coupe d'Afrique ma dem. barke borom Tuubaa wallaahi. Alioune mais rapidement bu fekkee ne jox may dem lay wax si ñaaw njort ni mu bonee. may dem parce que moom lu njëkk a ñaaw njort mooy naka ngay takkee jabar di ñaaw njort si moom Alima loolu ban nit a koy def je ne sais pas. ah waaye nag mën nar a takk sa jabar di ñaaw njort si moom mais kooku est-ce que sëy boobu dina de parce que nga bañ ko takk nga bañ ko takk parce que kooku lu mu def nga ñaaw njort. ah waaye Aliou Ba sàmm ci la day nekk si tànk yu jub. sàmm ci la de sàmm loolu. ñu day sàmm de. oui loolu doo am si moom confiance. Mhm. sàmm loolu bu la tàggoo doo ko bàyyi. Ah. donc ñaaw njort si sa soxna moom du ñaaw la. d'accord sàmm ci la waaw juste pour dire que damay rebondiraat un peu ci ci Benoît fi mu commencé woon. <laughs> li père wax am na ñaaw njort ak ah. ñaaw njort bokkul. waaw ñaaw mais ñaaw njort bu positif am na. waaw nit da ngay dawal sa xel. ci lu ah, ñuy wax lu les waxul. Ah. jëli lu waaw jëli lu lees waxul. tant que tu n'es pas un témoin qui est auditif et oculaire comme ni nga koy waxee. dégguloo gisuloo. Mm. bul yóbbu sa ñaaw njort mu sori. waaw mais nag del foog il faut que del foog. del foog pour sóoraal lu ñëwul. del mais ngay sóoraal lu ñëwul. <laughs> mais il faut que tu sois un témoin qui est oculaire et auditif. <laughs> ngay dégg di gis. waaw surtout si cadre jëkkër ak jabar. comme ni ah. nga ko waxee na ah. si sa soxna aussi. nga dès l'instant nga dugg ci moom rek nga ñaaw njort sëy boobu i ilaa mu ci dootul baax. mais est ku jigéen au fait ku ñuy ñaaw njort ci yow yow yaay wane li tax ñu ñaaw njort ci. waaw parce que lu nuyoo woon ca ngoro ga feeñ na ci sëy bi. Oh. dëgg la papa. non mais dëgg la attends Alima Alima demeewul day fekk day fekk def na non day fekk ca ngoro ga. téléphone bi ubbi nañ ko. dama ni ah, jeex na ah, jeex na au 88 628 89 90. yow looloo ma jeexal sama temps de jox la. Ah. mais day fekk li olof di wax lu nuyoo ci sëy ngoro gi feeñ ci sëy bi su fekkee da ngay labat nga tase fa keneen nga muñ nangu ne da nga bëgg place bi mu la fay planqué dem sedd keneen wala di génn nga gis ko muy def naka su dul ñoonu ba yow nga accepté loolu lu boobaa lu la ca fekk yow la. mais nag boo demee ba ah, takk ndaw si ah, mënta ñàkk d'accord mais boo demee ba takk ndaw si jigéen bu amul jëkkër ba mu traversé non moom laa lay wax foofu laay jëm ah. li Benoît def c'est la revenir soo demee ba wóolu nit ki takk ko waratoo eh. am ñaaw njort boobu déglul Ali Mandione jigéen bu amul jëkkër ba mu traversé ngay teg ma jigéen bu amul jëkkër non amul def casting bu ëpp boobu la moo tax moo tax fi mu toll ñu am problème mbaraan dafa rétrogradé hmm. mbaraan doxatul ci réew mi amatul ana ñu ko doon def. Hmm. munoo nax Benoît nax per nax Pa Moussa nax Oustaz. Hmm. da ngay kaw. mais booy def casting faaw nga segg. waaw faaw nga segg xool ñu bëri faaw nga xool ñu bëri xool benn xool Pa Moussa xool Moussa. mais nag chance la. c'est du choix chance la mën nga am choix mais mën nga am chance tombek ci ci ci nit ki parce que xam nga li ñuy wax iceberg bi li génn rek ngay gis mais li ci suuf xamuloo nan la. ñaanal yàlla yàlla booy la nga am chance koo xam ne xelam ñaw na te nekk na nit ku am euh, bag comme ni mu ko perdre background bu baax background bu baax yow mu yéene mm-hmm. mais kuy seet si ak kuy seet si bokkul te nit bu xemme mais c'est très dangereux c'est très dangereux yéen ñun di yéen ñaaw njott yéen a ngi ko jël léegi ko ci góor ñi ñaaw njott ci jigéen ñi ñun noonu lañuy ñaaw njott ci yéen non bari na ci fépp ci lépp football sax des fois ci terrain da ngay ñaaw njort. des fois nga xool Messi on a dit que c' le joueur qui réfléchit le plus rapidement le ki gën a rapide rapidité bi gën a gaaw que yeneen yi koy gis daw nga xalaat ne fii lay passe fekkante du foofu boo ñaaw njort doo xam fa muy passe. Messi maa du ñaaw njort ko yóbbu. moo ko yóbbu moo ko yóbbu <laughs> yàlla na ko fa ñaaw njort dalee la. soxna <laughs> Messi ñaaw njort ko yóbbu France. moo ko yóbbu maa ngi lay nuyuwaat baax di nuyu euh, kàddu yi ma fi jéeg yëpp. Mhm. rawatina père moom dafay bëgg may xëccoog moom te du mën a xëccook moom ndax <laughs> comme man ñi mel ni moom ñoo ma yar damay bëri lu may tolloole ak moom. waaye ñaaw njort bu ñu koy waxee baat bi. pour man pour ñu mën a waxtaan ci pour ñu mën a gën a dégg wax ji mhm. il faut que ñu xam baat bi lan la baat bi ñi mën ñi mën a dëppoo ci baat bi ba pare bala ngay dugg maa ngi nuyu soxna si jaw sama maam jaw la sant waa sama soxna jërëjëf waaw kii soxna mam kii nan nday jaw nday jaw père looy looy pégee oustaz bi non non kii ragalu ma ko ah, ah, kii non daa na ko ragal ma ak moom da seetaan nga ma ak moom ah. kii kii bu ko fekkee dañoo bëgg a man sama maam nga sant Jaw wala ma Jaw fii rue 22 fii. père yow fépp nga am ay maam. maam mu jege. maam mu Jaw moom moo jur Ngone Jacob Kayre Ngone Jacob Kayre moo ma jur. rue 22 mi ngi nii moom Njaga Jaw ñu ngi nii fii rue 22 soo ñëwee fii Jean de la Fontaine kër gi ci topp. Ndiawén le journaliste Alioune Diaw. Mhm. turfiste bii kii ci fas yi. waaw waaw ñoo bokk menn maam. dëgg la père ba bu ma père dafa bëri ay maam. père doomi réew mi nga père doomi réew mi nga moo tax fu ah, fu ah, fu kii rek. yàlla samay maam yëpp jaw nam san Ndiawén gii rue 22. su maam yi dañu riis waaw rue 22. léegi bu bu ñu waxtaan ci njort nag. xëy na wax nañ tudd nañ sëy ndax sëy eh, bu jagee rek penc mi jag xëy na moo tax ñi di si nekk di ko wax waaye ñaaw njortu gu ëpp nag mën na xañ nit jàmm te nit bu amatul jàmm bu bu jëfee du jëfam du ànd ak xel ñaaw njortu gu ëpp mën na xañ nit jàmm te nit bu amul jàmm bu jëfee jëf ju du ànd ak xel ndax soxna si ngay ñaaw njortu si moom wala jëkkër ji ngay ñaaw njortu si moom loolu sëy dana fa jafe yéen ñaar mais nag mën nga ñaw njortu ñaw njortu mooy li naan góor gu fiir wala soxna su fiir ndax am na loo xam ne boo boo ko gisee muy raam nga jàpp ne kat ci ñag bi la jëm mm. te ñag bi daa am lu mu làq la nekk ca gannaaw mm. dangay fexe ba doo àgg ca ñag bi mm. <laughs> waaye firiwul nekk ñaaw njortu goo xam ne par exemple mm-hmm. yow ak sa soxna bokk leen fu ngeen dëkk mm-hmm. Mm-hmm. yow yaa ngi fii moom ma nga fee ma ngay xëy di léegi yow yaa ngi xëy di liggéey yow nga bëgg yow bëgg xam lan la nekkee bi mu xëyee ba keroog muy tëdd loolu yaakaar naa ne dana dana poser problème moom itam mu bëgg xam yow bi nga xëyee ba ba keroog ngay tëdd loolu dina poser problème mais Alima dafa am lu mu wax mm-hmm. ki ñuy ñaaw njortu ci moom mën na am mm-hmm. dafa def dafa am lu mu def luy tax ñuy mm-hmm. moom mooy dafa am lu mu lu mu def jëf joo xam ne war na tax ngay ñaaw njortu si moom léegi nag ñaaw njortu gi bu amee dafa am loo jeexalee mooy jugement bi am jugement bi pour man foofu la erreur bi gën a nekkee ndax tey euh, bu dee bàkkaar la nit ki bàkkaar bi mu def moom la digganteem ak borom bi wala moom la digganteem ak société bi wala moom la digganteem ak nit ki léegi Euh, ma jël benn misaal bu ndaw. Mhm. ñi am ko ñu jël fal ko nangam mais bi ñu koy fal nangam train de vie am nii la woon mais tey bi ñu ko falee bi at mi dilsee wala bi bu ñu demee ay weer gis nañ ne ni muy dundee tey ak ni mu doon dundee bokkul ñu ñaaw njortu ne dafa def malversation wala dafa am lu mu lu mu lu mu jël lu bokkul ak li mu waroon a jël. Mhm. dañ koo corrompre wala dafay teg dil wala dafay dóor. kooku jàpp naa ne boo waa penc mi dajaloo ne kii kat dañ ko bëgg a saytu maanaam dañ ko bëgg a auditer ñaaw njortu bu amul woon doo dégg ngeen ne OFNAC mi ngi fi OFNAC mën nañ jàpp ne benn bëtu ñaaw njort la bu état am ngir lan ndax dafa am ay yu mu dénk loo xam ne askan wi ñoo ko moom ñi jàpp ne bu buñ la dénkee yëfu ñëpp te kenn du la saytu mën nga ci def jëfandiku bu bokkul li ñu soxla moo tax ñu am benn bëtu ñaw njort bu tudd nag boo xam ne mooy ñëw ne alima liñ la joxoon nangam la loo ci def fan la jaal marché yi noo ko joxee ñi saytu loolu ba xam ne kat fi nga koy jaarale foofu la pour man loolu du benn jafe-jafe mais nag nga seen alima moom wax supposé waaw da ngay supposé da ngay dégg da nga naan euh, le présumé euh, meurtrier maa ngi dégg nga koy wax sànq. voilà da ngay supposé kon loolu mënul ñàkk ci ak dund. ndax nag euh, alxuraan bu fekkoonte ne ñaaw njortu baaxul alxuraan daf koy tere waaye daf ne inna baada zanni ismun kon bu waxee baada mooy yenn njort yi bàkkaar la mooy nga gis nit ki rek daal di koy defal jugement bu catégorique amuloo denn loo ko may. loolu pour man bu ñu ko bëggee yemale si séeréer dafay gàtt mais nañ ko yóbbu ci penc mi ñëpp alima ci ci ba ci ba ci ay euh, collègue de travail fu ñuy liggéeyee mhm. euh, mën naa ñaaw njott ci Fatou Abdou mën naa ñaaw njott ci Moussa voilà mën nga xëy Fatou Abdou mën na ñëw mhm. sol benn jëf neeram boo xam ne macha allah bu subaa mu ñëw sol benn brodé benn brodé autorisé bu mu ñëw indi beneen yére mm. nga ne Fatou Abdou mii kat ñenn maanaam yi muy daal da leen di dóor da leen di laaj xaalis da leen di nangam loolu ñaaw njortu la mm-hmm. pourtant Fatou Abdou am na benn frère am bu tudd benn ma ngay dem fële am na benn càmminam bu nekk feneen ñooñu noonu di jël li ñu def si moom ak ay nitam yu mu am ak moom li muy liggéey ngir boppam doomu aadama nit ku nekk da ngay euh, booy dem di fekk si di fekki nit ñi am na noo xam ne war nga ko mel am na noo war a comporté par rapport ak loolu kon loolu dafa am lu mu lay jaral dafa am lu muy jar dafay am njëg euh, yow mi nga xam ne